asalaamaaleykum ñu ngi leen xamante ni yéen ñu safoo seetaan fii ci Lou'Bess TV mbégte bu sax lañu am ci àndandoo bu rafet bi nag euh, jigéen ñi dañu ñëwaat ci euh, góor ñi nga xamante ni dañuy maltraité xale jigéen ci néegu sëy yi ci ak sama ñaari gan yu doy waar muy euh, Ahmadou maa ngi lay fay di waat bu baax a baax di rafetluwaat teewaay bi fii ci Lou'Bess TV di ko ànd ak suñu xale yi macha allah bi àggale li nga xamante ni mooy ëttu jigéen ñi ah, ñu nekkoon ci nag boobu ba léegi waaye dañu ñëwoon bi ñuy arrêté ku seetaan vidéo yi di nga ni dañoo waxoon dañuy dem ci góor ñi tey nag góor ñi la daa war a saf sàpp ma dend ak Amadou ni ah, maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Larissa di nuyu soxna Mané bu baax a baax di leen gërëm aussi ci invitation bi si seen émission ëttu jigéen ñi comme ni ngeen ko waxee rek da ngeen annoncé woon que di ngeen ñëw invité góor ñi te wax li jëm ci néegu sëy yi comme ni ko annoncé léegi euh, violence faite aux femmes man damay ne violence rek ci ci ci néegu sëy ndax muy côté bu góor muy côté jigéen ki violence bi am na ba pare waaw. cette fois ci euh, euh, góor baax na sa baay a tax waaye la mu def sa yaay boo ko yegoon da koy rëkk doo ko bàyyi da nga koy dóor góor ñi moom ñu ci galan bari parce que nag xalundéef lañu rek heure boo leen sulle yaa ngi leen fekk ak tàkk-tàkk waaye yow nga xam ne yaay sëy ci biir kër gi rek yaay jël sa arme nu ñu ñëwee ànd koog yow nu ñu ñëwee rek nga waaye nag ganaadëri bi moom bareetul macha allah. wax lu am solo muy galanterie yaakaar naa ni góor ñi surtout góoru Sénégal laay wax ah ñi ma xam. Euh, jigéen Sénégal boo ko gisee nga xam ne ne vraiment ñu leen toppatoo mais jigéen Sénégal ñoom benn habitude maanaam ñaari poste lañu yor boo leen defal poste bu bënn ak poche bu bënnul booy def lu baax ci poche bu bënn bi lañ koy def booy def lu bon ak lu mu ndaw ndaw ñu ko def ko ci poche bu bënnul bi ëllëg bu dara amee rek ñu yulli bële tegal la euh, góor Sénégal ka euh, du dañoo bañ galanterie yi réew mi moom metti ndaxte tey takk soxna am ay responsabilités yu nekk sa kaw yaa ko war a dèjà dañu ne yaa ko war a dëkkal dëkkoo ko di ko dundal gis nga responsabilité yooyu fi jamono ji toll métti na métti boo xam ne nga bëgg fay location fay ndox fay courant am doo koy jox argent de poche topp toppatoo njaboot gi imprévu ñëwagul lan moo ci jar ay calendrier yeeg ay jënd cadeau di indi saako ceeb bi donc cadeau la parce que xale jigéen ñi ci moom la ñu xam lan la ñu bëgg nekk ñu fii si ay série indo wala ci ay no gis nga novelas yi moo yàq xale yu jigéen yi dañuy seetaan benn novelas gis ki gàddu benn bouquet fleur indi ñu naan non lii li ñuy def moo metti parce que mënoo xëy fin di mois nga fay ko benn cent mille francs bëgg ci bëgg ci fay courant fay ci ndox ba pare na seen gaspillage mi ngi ci ndax chaque semaine ñu ne dañuy xew nga bëgg jël loolu ba pare teg ci ngay gàddoon ay cadeau di indi li ngay dox ci li ñu lekk ci kër gi rek doy na cadeau. ak ñi nga xam ne dañuy seetaan navelage bay yaakaar cadeau daa wax ne sàng saako bu bënn la ak saako bu am dara te ngeen a bañ a pousser góor jigéen ñi ñuy àgg ci saako bu bënn ba. soo àggul ca saako bu mën ba rek doo gis lii. non mais loolu ngeen war a xam dañu ne euh, sëy c'est le meilleur et le pire tey bu mettee da nga war su neexee da war a xam neex na gis nga senegal Sénégal wala bu ñu fay ko fin de mois talu ñu njaboot gi Sénégal ngay gis ah ci ci kër euh, nit góor am am gis nga bu mu takkee soxna la bàyyi jënd yére rek daal la tabaski du ñawlu korité du ñawlu amatul dara benn précaution lu dul jabaram ak ci doomam. nangoo maag loo am. def ci ñoom loo am suba ba ngoon def ci ñoom loo am def ci ñoom te ñoom. déjà fitna bi ñu lay teg rek. nangoo ma ak yow jigéen ñëpp nag sérieusement parce que qu'on se dise la vérité du jigéen ñëpp am ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale seen borom kër yi ñu ngi def lu ñu mën ah, mais tey nga yor koo xam ne ku mel ni caba nga fël wàcc liggéey yaa ngi sonn pression mi ngi nekk sa bopp bi nga ñëw mu laan la courant bi jeex nag gaz bi jeex nag. loolu suñu sama natt bi ma bokkoon dama war a dem natt mais. loolu ay wax am na suñu maam yi jamono moo changé. suñu maam yi benn loxo lañ la yor ci kër. gérer kër mais jamono ji jamono ji benn góor mënutul gérer kër. dafa am dara yoo xam ne dama jox dépense dafa métti. nga ceeb courant ndox nga jënd ba pare bëgg ci boole ay cadeau yu sew sewaat yi. li ngay warante loolu problème bi. mais eh, comme ni ko maanaam waxee mais tamit loolu war nga mën a jëndal sa ndox bu juróom sax nga jox ko ko. Eh, ñu ngi koy def ñu ngi koy def bu ñu génnee ci mbedd bi romb dala carax jënd indi bu ñu rombee tissu bu bu rafet sa sa xarit di ko jaay nga yow jël ko di ko fay nànk nànk dèjà da nga indil ko mu naan la lii foo ko jëlee ku ko jaayaat di fiir lépp ñoom seen pression seen bopp mooy dañoo def seen bopp jalousie pour ñoom loolu def loolu leen defalul rek yaa ngi ko defal beneen jigéen fekk demeewul noonu jamono ji moom metti metti boo xam ne góor ñi mënuñu mënuñu matale lépp dañuy war a comprendre ci yu bari mais bu ñu bëggee jël benn affaire teg ko pression déjà euh, location ku naat ndox bi rek pression bu muy def ci góor yi ba ci boogee bëgg boole détails sew sewaani li ëpp solo mooy bu waa ji wàccee wàcc na si jàmm ñëw na ci kër gi li nga togg lekk na ba biiram fees tëdd na si lal bi jaaxaan nga ñëw wax neex xelam nekk lu tax ca départ ba ak ca doxaan ga ba sëy bi di màgget ñuy door a dagg loolu mais doxaan ba fayoo ndox fayoo courant fayoo location. ba tey yaa ngi bokkul. bu tey gis nga góor góor góor bu la jël. di la takk tey dañuy dëkk ci kër dëkk ci benn pantere tey bu la takkee xale jigéen dañu lu ñu njëkk imposé mooy appartement bëggatuñu dem seen kër famille bëggatuñu ko. appartement la imposé nga war dem jël appartement Dakar appartement bu gën a ndaw 200000 la. yaa bàyyi ceebu jën dem sa sa salaire nekk benn benn 250000 nga fay bëggatuñu ko. wala imposé appartement mais boo ko takkee nit ki ñëw mais yow ku jën yaa ko war a jàppale yu bari. seet na du jigéen yëpp macha allah du jigéen ñëpp. dama koy wax mu leer parce que damay bañ génn fii xale jigéen ñëpp am na jigéen yoo xam comme ni ñu wax rek derrière euh, tout grand homme il y a une grande dame mais en manière matière générale la ñuy wax nañuy am yërmande ci góor ñi góor Sénégal sonn nañ xam nga ñu koy xam boo taxaw ci tali bi gis nañ ci naaj bu tàng bi ñuy ambulant boo demee ci garage gis nañ ñuy jaay matin bi fajar bi boo jógee nga gis góor ñi ni heure bi ñu yeew pour dem liggéey ay si 5 heures du matin. ba 20 heures 21 heures mais li muy li muy uti foofu uti ko pour ma sàmm uti ko pour ma demba pour njaboot gi mu bàyyi ci kër gi la. waaye heure boo liggéey ci kaaraat bi boo ak jigéen ña koy bokk buur Sénégal charge na metti na jigéen ñi dawal compréhension ñu fooy fekk yéen a ngi ci natt yi te dañuy xew yi ku leen jox dépense ngeen wàññi ko. da ngeen yaakaar ne wàññi dépense gi rek te doon dañuy yokk de. bu ñu leen joxee 5000 francs pour deux pour pour benn jour ngeen ngeen ngeen dépensé 3000 jël 2000 dem def ko ci ay natt. Ah, dañu waxal ne yéen ah, dañu war a comprendre góor ñi xam ne dañoo sonn. nga laal baaxul de comme ni ko Ahmadou waxee mais góor ñi yamatul ci ndey gi kese mais dañ lay màtt rek am ñoo xamante ne ñoo utilitaire. maanaam Amadou li ma dul d'accord ak moom mooy nee na heure boo xëyee fajar gi yaa ngi gis góor ñi ñi nga daw oto boo dugg ni jigéen xajal ma ma toog te xam nga lan moo waral loolu li ngeen di commencé la bu ngeen commencé ak doxaan naan ko sama pantre bii nga may fekk duma ci nekk ak yow ñaan naa yàlla su ma la takkee dem ci appartement kon kooku yaa ko diggoon yor. lu tax yoroo ko yéenay imposé ah? appartement yi waaw kay da nga koy mën waaye ci kaw jom ji maanaam dañuy dugg ba ca biir si ngom bi commencé sàppi gis nga noonu ñu naan ko tëf mu sànneeku noonu lañ bëgg a def jigéen ñi waaye nag ak i jigéenam gis nga tey boo yëyee si ngom bi ba mu sàppee amal ngorog wanaasu ko boo demee toilette mu génn man loolu laa gëm yaa ko doxaan takk ko indi ko sa kër jéem koo yor bul séentu ci moom dërëm ndax nag jigéen la yàlla moo ñaale bu la defalee tey suba bu amee la ko naqari mënta tojub kaas mënta dammuk bale da la yuuxu wax la lam la doon defal yéen a ko jagloo ndax xam nga lu tax seenu or day jot doo leen ko laaj de ci biir doxaan gi ñoo koy takk àmbale ko indil la ko doo xam sax tëgg bu ñu ko jëndee. bu leen di jaawale doxaan am takk loolu ngeen war a bàyyi la indil la ko doxaan ma maanaam takk ji dañ lay indil lépp waaye ñetti weeri mbégte la ñeenti weeri jooy juróomi weeri yi souffrir laajoo ma souffrir gi lan la de bu ñu doyalee dootuñu wàccati heure te bu ñu wàccee ci buntu kër ba la ñuy commencé toll di leen wéq ak a pàdd yaa ngi may dégg jéeg gi doon sëy ba tey ñu ngi sëy jéeg gi lal nàpp koñ ba koñ ba tey ñu ngi koy def jéeg gi sang seen i jëkkër ba tey ñu ngi koy def waaye ñii la kenn mënta sàng ba newuñu fungu ci biti boo leen sàngee seen i tànk des ci biti yàlla bu ñu doyal dañ koy wéqaale larisa ngay wax dafa mel ni jigéen ngay ngay ngay bàyyi li ngay fara parce que boo ne violence faite aux femmes la sax xale jigéen ñu jàpp seen jëkkër yi di poñe ci mbedd yi sutura mënul ñàkk sutura mënul wees loolu bu guddee da ngay wàcc bëgg a tëdd dallu mu nekk sa lam sa nopp yi di wejejeje coow lii coow lii coow lii coow bu am ñooma gis nga góor ñi bu doon ñoom dong ak seen sago wallaahi coow daam mënoon nag nekk ci kër gi mayoo sa jëkkër jàmm mayoo ko salaam mu génn romb benn màgget ci ci mbedd bi xale bi mel ni mu war a mel may ko jàmm may ko salaam bu ñëw mu teel mu lekk ba suur ñibbi dem dallu da mais day dem am na ci droit. mais ginaar yooyu est joxe. joxewuñu ko. ah xale góor yi joxewuñu ko. Eh, parce que kële moo leen bëgg a yéene leen ko. maa bañ loolu da ngay wàcc liggéey. ñëw dugg sa kër a dallu mu nekk sa nopp yi. yaa ngi dégg yaa ngi dégg bu dul jeex mun na pression boobu munoo ko gis nga fu góor góor bébé la góor ku ko nabb nabbee lay wër foo amul jàmm nga uti ko feneen. mais jigéen ñi dañu sonn de est-ce que eh, góor yaa sonn mais ñaar jigéen ñoo fi jàpp seen jëkkër di ko dóor dañuy wax violence faite aux femmes mais mais yaa l'association des maris battus jigéen yaa ngi doon seen jëkkër di leen poñe ci mbedd bi li gën a metti nag mooy nga xam ne sa jëkkër dafa bëgg lii ci kaw lal bi nga ko koy xañ bu soxlaa lii bu soxlaa bu liggéey ba sonn semaine soxla boppam soxla la nga naan ko déedéet iPhone bi nga ma diggoon chaîne or bi nga ma diggoon lii bi nga ma diggoon waa ji bu génnee dem feneen keneen ki ñëw jox ko gratuitement mu jël mu jël nañ gis nga yaakaar naa violence gën a métti ci àdduna chantage ci la bokk mooy chantage sa borom kër dèjà da leen takk ñu mel ni ñu war a mel da ngay doxaan nga def ci ñoom lu ne ñu dugg ci kër gi bu ñu yegsee une semaine deux semaines bi ak sër goo xam ne ne koo ci gis kenn xamatul lu muy nduróol nga wàcc ci liggéey li a métti jigéen day defaru génn ci mbedd dugg ci këram li mu defaru elamu tax boo yegsee lu muy njëkk def bu tibbéer bi sànni loxoti li mel mel ni benn dof bu jógee ci mbedd bi ak nga bëgg nag yow góor boobu bëgg dëkk ci routine boobu du ci dëkk am na jigéen chaque jour da ngay def ay def yu neex parce que nga ñëw gis nga góor kon nabb dabbee ku ne moom ko waaye jigéen nit boo ko nabb mais boo góor yi nag nabb dabbee mënul weesu nga xëy am jom génn sa kër 5 heures du matin dem liggéey wàcc li nga am ba mu dee téeméer nga indi ko sa kër léegi parce que xale jigéen bu ñu sëy see un mois rek la ñuy di solo waaye dama laa wax ne la maanaam magum kër boo ko dabee dóor ko ci mbedd mu bàyyi la nga dem yow la neex jéeg bi nga indi ci biir kër gi muy sëy damay ànd ak moom ci benn côté góor ñi parce que nag ak i góoram man su ma dalee ba yàgg damay taxaw parce que ak i góoram ndax lu ma nanguwul dinaa ci jël paar dafa am góor ñoo xamante ne macha allah dañoo galaa ndax lañ la doon won ca ndoxaan ga takk la ba indi la seen biir kër ba tey moo am wax ju sew boo ko nangoo ñu wax la wax ju sew gis nga góor boo xësee ba takk jabar yor sa kër dangaa war a doon kilifa goo xam ne bon exemple ngay doon del teel a ñëw di jiite njaboot gi del teel a ñëw di wax guddi naa nañ parce que da nga wàcc fajar nee na moom ci biir waxam dañoo yeewu fajar dem xëy yi léegi lu te yow boo wàccee def direct si sa kër bañ a jaar bay xool ku maquillage ku am na jeeg joo xam ne boo demee seen kaw coiffeuse tàkkusaan heure bi seen jëkkër di dugg si ci biir kër gi ña nga génne la ñu gën a soxla maquillage ba rafet toog def seen kaasu veeru ndox ngàbb ko torson tey xaar mu dugg ñu jox ko ko wej wej ju sew jooju loolu de bariwul loolu de bariwul ma dum sax 1 pour cent jigéen yi def yow ma dum 1 pour cent cinq baritul dem ba vingt heures beneen yoon nga dem ba 23 heures beneen yoon nga dem ba vingt 22 heures man bu dee mën a damay takk sama sër côté laa koy takkee ak seulement du ma sol maqué seulement laay sol taxaw ci buntu bi yor sama ngandam bale te lay xaar du ma la mbéj mbéjee. xam xam nga li mooy violence ay yata lay daan li ñu wax ni mooy violence. li may wax ni yegg na mooy violence. da ngaa changé heure bi nga changé boo ko changé loon loolu yëpp du am. léegi doo doo waxtaan moom doo waxtaan sa jëkkër xam lu tax mu changé heure. jàmm xam lan la mais ay doo xam nga ni lii lii lii jàmm jan la doxaane jàmm jën la takke ànd ak yow di doxantu ci mbedd yi boo gisee loo bëgg mu ne la lii bëgg nga ko dem kaay ma jëndal la ko di la jëndal ay fruits loolu bu ñu demee ba hmm. si bi sàppi dañuy commencé daal doxantu ci mbedd bi wóorul parce romb nga nuyu ko sax mu ne loo si loo si ak kii genre genre euh, genre fatlaay boo ànd ak sa ñoom sa soxna mu mel ni fatlaay boo ànd ak moom ci mbedd bi bu la xale bu jigéen bu dëkk ci koñ bi rombee surtout xale yu ndaw yi koo ci na nga def sax tonton mu ne rek mën a loo sekk kii indi la attroupement bu métti. ci métti boo xam ne bala mu laa indil attroupement ne ko kii doomi Fat laa yëg. déedéet xale bu la nee tonton. Ah, nga ah, xale bi di la loo sekk boo indil la attroupement boo xam ne moo tax kenn du ànd ak ñoom di doxantu ci mbedd bi boo ko defee ci mbedd bi chaque jour boo génn di nga xuloo di nga xeex. doo ko nangoo présenté. problème mooy boo ànd ak sa soxna waroo ah, ah. def. doo nuyoo ba pare doo ko sëy bàyyi ngi ko ne salaamaaleykum tonton na nga eh, def nga ne ko maaleykum salaam. nga ne ko la nuyu da nga koy fay mais ñoom loolu jàpp ni seen jalousie moo leen ci lu bari te gis li wax ni léegi sa borom kër wàcc am nag pression boo xam ne lu yàlla xam doy na pression de la journée eh. jigéen dañu ko doon teg ci kër gi pour mu téye njaboot gi pour mu yar njaboot gi ñu talatuñu ko da ngay wàcc liggéey sax léegi jamono ji la ñu taal taajal la bool añ ñu ngi toog sëgg seen téléphone yi. jigéenam rek. di kaa dañuy kaa suba ba ngoon. ak i jigéenam rek xaar ma sax maa ne waaye yëngal diw takk jëkkëram takk na wujj euh, takkal na ko wujj. ak sa jëkkër mu ngi toog lijjanti woo ko day génn uti ko feneen waaw léegi yow dégg nga kaa boobu bala nga cee dugg xoolaat ko. ñi ngi kaa dama ne. bala ñu laa kaa daf ñoo daf ñoo daf may permission ñu am ba ñaar ñett ba ñeent. waxul benn dafa ne ñaar ñett ba ñeent. ci boo ko mënee. ci boo ko mënee loolu wax mais nag gis nga boo ko mënee. nit bakkan fu am fu mu amul jàmm rek uti ko feneen. mais da gis des ñu mel ni nii noonu mënuñu ko waane waane goo xam ne di takk ñaar ba ñett duñ am sa. fu mën naa bala maa bëgg a dee rek. ñooñu ñooñu ñu mel ni ñu ne dañoo dañoo moom parce ñooñu xamuñu fa ñuy taxaw su may wax damay wax ko mën te nag bu c'est pas da nga yor benn salaire wu cent mille francs que amoo jàmm sa kër du uti keneen da koy fay ne ñuk am nañu koy def de fa nga koy teg dem uti keneen ku la ku la a metti te te mari mari seen bopp parce que lan dig nga leen iPhone parce que lan dig nga leen chaîne or mais xam nga digge bor la ah. gis nga nit bu la ah. ñaanee ñaan ah may ma lii dinaa la ko may da nga bàyyi nit ki bu ko dajalee teg ko parfois effet de surprise sax lay doon mais ñoom ñii kenn mën na defal surprise. parce que dañ lay merloo mer boo xam ne rek yow boo leen boo leen toppee ci xuloo ak xeex la déjà da ngay ñëw wàcc surtout wax ju bari. jigéenu Sénégal bari nañu wax mën nañu mën tontu sa jëkkër warul wax sax sa voix di jóg eh. mais léegi boo leen ne benn ñu ne la fukk taxaw ne dañuy xeex a yow xam nga ñooñu taxuñu sëy taxu leen jóg góor ne moom la Ahmadou ah, ñu tax a jóg ña doon jaamu yàlla ba tey ñu ngi jaamu yàlla ndax yaayee fa ñu nekkoon ba jur seeni doom ba mu màgg ba nga muur yóbbu mu sëy ba tey doom jafa la nekk. te nag waaye gis nga ñoom ñii la kenn mënta téye. eh Larissa Larissa foo déggee violence faite aux femmes boo xoolee ba ci biir. wax ju sew wax ju sew ma leen ko yóbbee. xam nga lu tax heure bu góor yëkkatee loo xam teg ko ci jigéen muy soxnaam wax ju sew la ko yóbbee. dañoo bëri wax ju sew jooju ngeen di bañ a àgg yéen jigéen amul doole moom laa miñam kese la dama ne wax ju sew jooju boo ko laajee lii lan la mu ne la lii lii la wax ji jeex na ba ko mu dem noppalu ko mais dañuy bàyyi ba nga fay làmp ñu toog leen ci yàlla mu ne ko léegi di fanaan ci canapé yi dañuy génn baleen génnee nag heure boobu la defee benn benn benn benn sonn la ci néeg bi nga xam ne boo demee tey kër Larissa di nga mën tëdd jaaxaan da ngay jóg ci guddi gi xajal ko man nee naa góor jigéen xoolal sa soxna jaru xuloo jaru xeex da koy bàyyi ba mu togg ba pare ba tegal la nga ne ko re jaar naa reer naa kër ñoom Mamy Samb ñoo toog lu ci mën. loolu yoon la. Ah, mu ne ku la mel jàmm nga reeri kër lekk dafa ànd ak wax bu neex. jéggi ko hmm? Larissa lekk dafa ànd ak wax bu neex. munoo ma jox lekk ba pare timma. di wax di ko fekk bis dina ñëw nga jéggi ko jàll ci keneen. te ngaa bañ a jéggi te woote maslaa woote jàmm. non jàll ko mu gis nga jigéen. silaan la garabu silaan la boo ko laalul du jooy jigéen bantub silaan la feeg dam moo ko doo gisee rangooñam maa la wax lii. dañuy laal seen problème yëpp jàmm si nee na surprise da koy dajale. surprise ci suñuy yaay ya nga xam ne dañ ñoo jàngal surprise suñu bàyyi yañ ko sañoon a wax di ko indil suñu yaay ñu koy xool. jafe woo leen ko de yéen yaay yi jàngaloon ah, jafe woo leen ko jamono ji ñoom seen surprise dajale ko woon. dama ne benn pomme boo romb ci mbedd mi 200 francs nga indil ko sa jabar ne ko daggat ko teg ko ci palaat bi surprise la cadeau la mu ne la ana lii de si ana beneen pomme bi déedéet jëndoo benn pomme donc beneen pomme jënd ko jox ko beneen jigéen ñoom seen problème yëpp loolu la du ma nangu kuy raam di la bokk su amee oto yóbbaale la gis nga ki indi pomme bi nga yóotu sa palaat daggat ba mu jekk def ci ngeen ŋàbb seen ñaari fourchette léeg-léeg nga yëkkati pomme sexal ko xool ko jàkkaarloo moom ree sa xol neex lool bu subaa bu mu changé heure bi na heure ba jotaat na ñëw te indi banaana beneen yoon bu amee or indil la ko waaye gis nga danaa jàpp naa ko fu nooy comme dañu ne ma ak Fatima tey waxtaan naa ak moom jàpp naa ko fu nooy bu subaa ma gën a exagéré bu fekkee 22h laa ñëwoon bu ëllëgatee 23h laa ñëw waaye 23h boo ñëwee fekk fa rajo bi. rajo bi moom day tàkk rek te du fay soxna Mara yaakaar naa waaw di leen di leen sant di leen gërëm rek te ñu xam ne aussi li ñu ci wax lu ne waxuñu ko ci ci visé kenn ndax euh, ci wax ji wax ji bari na mais bu ñu fàtte macha allah jigéenu Sénégal ñoo ñu am jom dañ ñu am fulla la am fayda lañu li may wax sa jour rek góor neex naa neex naa gérer neex naa muñal et dans ce pays y a de de très grandes dames hmm? Lou'Bess TV rek fii boo fi duggee euh, à part euh, mun naa ne Sonia xam ne daa bëri histoire ñi si des ñëpp xam naa ne moom suñ seen borom kër moom dinañ ko dañ gérer rek moom Sonia moom xam naa ci ñii di dóore lay bokk di jaajëfal tout le monde ah di jaajëfal les grand dames su ma limee damay juum mais damay lim kenn rek ku tudd Awa Cissé moom laa lim rek di ko ne c'est une très grande yàlla defal jàmm ak waaw may nuyoo waat rek di wax ni ñu ngi jaajëfal waa Lou'Bess TV gi yëpp parce que taxaw nag euh, ñu lay seetaan ngay def émission yombul mm-hmm. waaye suñu juumee nañ ñu baal te xam ne rek émission dong la dañuy yeete. Mm-hmm. waaye nag may ziar nag sama góor gu baax gi nga xamante ne la njëkk jabari jëkkëri njëkkante la mm-hmm. kooku moom bokkul ci ñi nga xamante ne dañuy violé parce que nag heure buy ñëw dina ma indaale li ma soxla bu ma ñëwee sama lex bi ab lay xam ca tegu <laughs> sama parfum ba ma ko defaloon moom lay xeeñ kon nag góor ñi macha allah am nañ jom am nañ fulla am nañ fayda ah, di ko nuyu looy maane maram ngéej ah di ko ziyaar bu baax a baax a baax di leen wax ne rek ba beneen yoon incha allah ci beneen émission. jërëjëf soxna Mané ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen a féete ci wàllu réseau di leen jox tig daje ci yeneen jërë jëf